ku dof bay damoo baayamit mbaa ndeyam dofal bay damoo yow sëriñ bee ka gëm ku dof bay damoo baayamit mbaa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 walaf buy rëyug ndof ba jóg jëm tugal ne day jaaye gerteem du andib dërëm du yeggit tugal nag areenam du jar da koy tonte par des du mus sax mbayam tontu mooy paas dëgg jaayal fi sab teeru kon doo gëlëm dërëm yii fa sab teeru ngay seeru la yonnen ba daa aw nitam la bambay digal aw nitam la ba fasal aw nitam la bambay defal yit yonnen ba daa xamal aw nitam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 garab goo fu gis yow ma ngaa kub gegam garab gee di yonnen bi bambay gegam ku jug weesu sab geg asal dal di ku weesu gegam yit janoo kub gegam ku xam yàlla xam naa ne lii ma wax ku gis boo ya boo weer di nang mbaa nga